jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen duyoo dal leen ak jàmm ci seeni i actualité du jour ñu dooree ko foofee ca diwaanu Tambacounda benn pa kankuran nag euh, moom moo dagg baaraam euh, benn pa xale ba ñu daal di koy jàpp yóbbu ko prison euh, loolee gendarmerie bu Tambacounda moom moo ko def ginnaaw bi mu jëlee li nga xamante ni moom mooy coupe coupe bi mu yore doon ci def rek li nga xamante ni moo di ay prestation am ci la daggee baaraamu benn xale yëf yi mu ngi xewee nag ni ki 28 août bi ñu génn ci quartier bu ñuy wax Saare Gileel bu ñu sukkandikoo ci journal bi di l'observateur moom mi nag dañu ko sax placé sous mandat de dépôt muy wéy ci turu M sar moom mi nag dafa doon incarné kankuran ak mystique ba mu àndal yëpp 8 euh, septembre bi ñu ma sax lañ ko fas yéene jugé jëmale ci coups et blessures volontaires soxna si ñuy wax itam Bernadette Diouma Mané moom moo organisé woon rek boobu lee kankuran moom itam dañu ko daal di mujjee jàpp jëmale ci manifestation non autorisée ca diwaanu Touba fu ñuy wax nag ndamatu benn menuisier ébéniste moom lañ fa tuumaan li dafa ëmbal euh, jabaru jàmbur moom mi la sax mineur la te borom këram itam émigré la yëf yi nag mu nga mujjee foofee ca commissariat bu ndamatu euh, bu ñu dellu see rek ci ni mu demee moom mi nga xamante ne moom mooy nday mbili gi di wuyoo ci turu F Diak ak kii di victime bi di wuyoo ci turu SMD ñoom ñaar sax nag doon nañ génn lu jiitu xale bu jigéen bi di sëy euh, ci seen biirub génn boobee sax nag jot nañ cee am benn doom laata ñoom ñaar ñoo arrêté génn bañ ca tegee nag euh, ab diir euh, moom benn émigré moo ñëw daal di rekk takk xale bu jigéen bi nga xamante ne nii ay atam ci fukk ak juróom-benn képp la toll maanaam mineur la. moom menuisier ébéniste bi nag moom ay atam mi ngi tollu ci ñaar fukk ak benn loolee taxul mu bàyyi xale bu jigéen bi le benn yoon euh, moom F Diack nag dafa daal di ëmbalaat ñaareel yoon xale bi nga xamante ni dafa doon door a wu coow la nag mi ngi juddoo ginnaaw bi borom këram nekk émigré daal di ñibbisiwaat fii ci Sénégal euh, ci bi mu commencé am xel ñaar nag ni soxnaam dafa daal rek ëmb euh, moom moodu moodu bile ci la ko yóbbu ci benn structure sanitaire ginnaaw ba nag ba médecin yi defee seenu examen ci la résultat yi positif moom xale bu jigéen jigéen ba nag ci la ko wax ni euh, faram ba woon moom moo fa jaar maanaam rek moom moo ko ëmbal ginnaaw nag bi ñu déposé benn plainte foofee ca commissariat bu ndamatu euh, policier yi daal di def seen ëppal liggéey ci lañu ko daal di moom jël si moom menuisier ba moom xale bu jigéen ba nag ba muy def déposition am la nga xamante ne moom la xamle euh, mooy f jack mi daf koo daal di violé ci loolee ci la cib jëlee ab ëmb mi ngi koy nettali sax ni benn bés dafa demoon ci këram ngir seeti ko dem xool nag ki nga xamante ne mooy seen doom ba ñu njëkkoon a am waaye FJAK nee na dafa profité ci loolu daal di koy euh, sàkku nee na nag ab caakri moom la ko jox mu lekk ko ba mu ca noppee dafa daal di xam euh, fàttalikuwul dara nee na ci loolee la profité daal di koy rek euh, tëddee ba mu jëlee ci boobu boobule ëmb. moom menuisier ba nag ginnaaw bi mu taxawee ci kanamu enquêteurs yi dafa njëkk a bañ laataa rek enquêteurs yi di ko pressé ak ay question Ah, ci la nangoon yëf ya nag moom moo ko def moom nag daf caa teg di te li nga xamante ni nii moom la def ah, rax si dool li di baalu ak nee na moom nangu na ni nag sekk nag jabaru jàmbur ah, te nee na xam na loolu ban gravité moom moo ci nekk itam xam na li ci diineem wax. jamono ji nag moom F Diack ngi ko présenté procureur tribunal euh, instance bu Mbàkke daal di koy fas yéene àtte soxna si di Alexia Kanté moom am 30 ans nekk itam yaayu ñetti bant jamono ji nag ab àtteem daal di nay daanu ginnaaw moom mi nga xamante ni nii nag. moo bi woon benn clinique clandestine foofee ca Almadi benn kër sax lu luwe woon di ko fay cent mille francs par jour moom nag lam doon def moo di ay injection ngir rek jigéen ñi daal di yokk seen ginnaaw wala seen i ay euh, ween ñeneen ñi itam daal di defaraat seen i bakken moom mi nag di Alexia fi mu ne nii juróom benn weeru kaso moom lañ ko daan yoo xamante ni benn bi daf koy tëdd jëmale ci exercice illégal euh, profession réglementée ak mise en danger de la vie d'autrui tribunal flagrant délit bu Dakar sax moom moo ko doon àtte di dinay wax sax nag ni matériel yi mu doon utiliser ñu daal di koy rek euh, confisqué moom mi leen nag tey ji ci suba ci la taxaw ci kanamu baar bi mi ngi wax nag sax ni dafa am master 2 en droit des affaires ci benn institut bu nekk Canada nee na itam am na benn diplôme bu jëm ci beauté esthétique ci benn institut bu Paris boo xamante ne def na fa formation deux mois rax si dolli Alexia ngir défendre boppam moom nee na am na entreprise bu ni mel foofee ca diwaanu Côte d'Ivoire nee nag bi muy door door liggéey bi fii ci Sénégal daf ko commencé rek defar li nga xamante ne moom mooy bakken mu nekk benn injection bu mu lay defal ci sa bakken bi ngir changer forme bi loolee nag nee na koy doon defal jigéen ñi nga xamante ni dañoo gën a bëgg a yokk seenu taar wala ñu màggetoon rek daal di gën a bëgg a beesaat représentant ministère public bi nag nee na ginnaaw ba daf doon def ay anesthésie te loolee acte médical la te mu ngi ko doon defee ci benn chambre d'hôtel amul woon benn précaution bu mu ca àndal moom dafa ñaan rek ñu daal di koy daan ñaari atu yoo xamante ni rek juróom-benn yi daf koy tëdd weeru kaso moom lañ ko mujjee daan yoo xam ne benn bi daf koy tëdd alxayri daal dinay jib ci ki ñuy wax euh, Yaxara Gueye ñu gën koo xam ci Ndeye Marie euh, ci série bii di euh, Karma moom nag jamono ji styliste bi ñuy wax Moussa Versailles moom moo ko daa dee takk ñaareel boobule mariage nag ñu ngi ko am en toute sobriété moom Moussa Versailles nekk nag benn styliste bu mag ginnaaw ay at yu mu def foofee ca diwaanu États-Unis di solal itam ay star fu nekk ci àddina bi moom mile moom moo takk Ndeye Marie carrément ñu leen di souhaiter reménage ca diwaanu Kaolack nag kii di Mané Faye atam toolu ci fukk ak juróom-benn ak mbay Babacar Sall ñoom ñaar ñëpp dañoo ñàkk seen bakken ni ki àjjuma gi ñu génn ginnaaw bi seenu gaal daal di suux foofe ca diwaanu Kaolack ñoom ñi sax nag ñuy xam ne si xibaar dañoo jóge woon rek ci benn match de football ah, bu doon am ci village bi ñuy wax Kër Socé Kumba au lieu ñu daal dee jaar ci tali bi ñoom dañoo décidé ni dañuy voyager par voie maritime maanaam jël ak gaal waaye seen embarcation suux ci fleuve Saloum bi ginnaaw nag bi ñu alerté population bi ñu def ay recherche ki ñuy wax euh, Mané fay moom mi dëkk sax ci village bi ñuy wax Kër Demba foofee ca commune bu Ndiafat moom mujj nañu rek daal di koy gis bi ñu poursuivre nag recherche yi ci la door a gis néew mbay Babacar Sall moom itam ci ndimbalug sapeur pompier nag ñoom ñaari tout tànk yooyu seeni i néew ñu ngi ko déposé ca morgue bu centre hospitalier régional bu Kaolack daal 2 ak kii di Sa Thiès dina fii rek jógee ni ki démb ci dimanche bi moom nag ginnaaw ab feebar ba mu feebaroon sax ba daal di ñibbisiwaat këram ni ki démb foofee ca Kër Massar. daal di nay rek fekk ji ku ci mel ni rek Mbaye Gueye Tigre de Fass mu nekk ab ñàkk nag ci lii di arène sénégalaise rawatina ci ñii di ay doomam ak waa ëxlu lamb yëpp muy wuyoo ci turu Mamadou Sakho turam dëgg Double les nag jot na am ñaari médaille d'or ci Jeux africains yu Nairobi itam nekkoon na champion du Sénégal judo turu Double Less bi sax nag ñu ngi ko ko jox jëmale ci taxawaayam gu mat sëkk gi mu amoon Double Less comme ni ko tur bi di wuyoo rek ñaari mètre tissu maanaam ñaari mètre lees loolee waraloon ñu tuddee ko ko ci ay jamonoom nag def na ay jaloore yu rëy rëy moom Double Less ci làmb fii ci Sénégal foofee ca Kër Massar nag nga xamante ni fa la dëj ba am jamono ji waa axlu làmb yëpp ñoom ñoo fa daje ngir daal di koy rendre hommage moom Double Less kii di njiitu réew mi ak ministre des sports itam Matar Ba daal nañu koy rek jébbal ay hommage ci jàmbaarte gi nga xamante ni amoon na ko ak taxawaay gi mu amoon ci arène sénégalaise ñuy ñaan yàlla yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana kii di Cheikh Gueye nag tribunal des flagrants li jamono ji daf ko doon atte daal di koy daan benn weeru kaso boo xamante ni daf koy tëdd moom Cheikh Gueye nag dafa doon mbubboon ni lieutenant division des investigations criminelles la bu DIC ngir daal di fayeeku benn xaalis moom Cheikh Gueye nag ki ko sant loolu benn xaritam la ki nga xamante ni moom moo ko leboon kopparam lu toll ci 10 millions dafa lankoon rek ba tëdd ci suuf ne du ko ko fay si naka noonee nag moom M Gueye mi nga xamante ni moom ak Cheikh Gueye ay mbokk lañu ci la ko woowee moom Cheikh Gueye mi nga xamante ni juriste de formation la ngir nag loolu mën a sotti moom Cheikh Gueye xelam daf koo jox mu daal di mbubboone rek lieutenant digle division investigation criminelle si naka noonee nag sax jot naa fayeeku lu toll ci cinq cent mille francs ci boobule xaalis yamu ca ginnaaw bi mu demee ci point de transfert ngir daal di retirer rek la ca des ba mu demee foofu daf ni militaire la buy door a jugee mission ginnaaw nag bi ñu ko toppee ci enquête bi ci lañ ko fekk këram daal di koy jàpp yóbbu ko prison ndax boobule xaalis mu waroon na nag récupérer jox ko mbokkam bi moom ci boppam Cheikh Gueye daf ko mujjee te di ko jëfandikoo bi mu taxawee nag ci kanamu tribunal bi li jëm ci usurpation de fonction moom Cheikh Gueye ko suuf lu jëm nag ci xaalis boobu bee nga xamante ni daf ko waroon a delloo ba noppi daal di koy lekk moom nee na dafa dem récupérer xaalis bi ci guddi gi foofee ca diwaanu yëmbal te mbokkam moom le moom moo ko ko santoon waaye nag nee na boobule xaalis gannaaw bi mu ko récupérer daf ko faate ci taxi bi mu yéegoon nee na moom lu baax rek moo ko taxoon a jug mu koy def waaye mu mel ni nag amul chance ba mu ca noppee nag dafa daal dee rek baalu àkk daal di wax ni dina delloo boobule xaalis boroom teg si di ñaan njekk ndax moom nee na jamono ji dafa nekk di préparer benn peu concours bu mu war a def loole lépp nag teewul tribunal bi reconnaître ko coupable daal di koy daan benn weeru kaso boo xamante ni ni daf koy tëdd moom Cheikh Gueye mbokk internet ci fi la ñu yem ak yéen seen actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jàmm ci yeneen i xibaar jaa ngeen jëf